ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène nuyu képp ku dëkk Cambérène ak ku dëkk Parcelles. di wax lii waaj ak waa ci Franc ndax même buñ bokkul sax diine moom gis na ne Sénégal ñëpp benn lañ quoi mu da xëy dem eglise ngoon jot mu ñëw fii samp ci Baye Fall yi loolu dañ koy rafetlu trop am nañ ci goor a sook ñu gis ni ñoom ñaar ñëpp kii di euh, Garga ak Franc am nañ combat le 9 eh, combat boobu na naka ngeen koy waajale waaw combat moom combat la man doon rek mënu weesu combat te incha allah rabbi bu soobee yàlla suñ borom dinañ si may ndam. ndax Franc borom jom la jàmbaar la day bëri ci fula ak ci ngor Garga de noonu ma leen ñaanal yàlla suñu borom mi nga am ne moom dara taw ko ci weeru kor bi yàlla ma leen ndam waaw. mais naka nga gisee état physique gu Franc ndax bi ñu bi arène bi tijjee ba léegi chaque par chaque dimanche wala chaque samedi mi ngi enchaîné def ay mbapat est-ce que physiquement pare na. Franc ku ku parewul jël ay soixante litres ak cent litres moom xale la mi ngi si yoonam yàlla bu ko cat yàlla ko cat seexlu rek Garga 2 mi ngi si yoonam yàlla na ko cat seexlu. am nañ yaqin trop si combat bi ñoom ñaar incha allah rabi dañ am ndam. Mhm. Gora lan moo tax gars yi ñemewuñ la yow yaa ragal gars yi wala gars yi ñoo nanguut ta lekk avance bi wala lan la. waaw xam nga làmb ji moom comme li may wax rek le temps mbër boo gisee àdduna yenn saa yi di nga boo xam ne pour nga am combat day a métti mais loolu yow yaa am sa ngëm-ngëm rek nekk ci li nga war nekk man bépp adversaire bu bëre fii ren jox nañ sama avance yow kay yaay dem ba si biir say mbokk ni la kooku wóorul wala bu si dugg wala nangam te ñu ñëpp ay mbër ku nga daan sa morom mais dañ suñ gëm-gëm daal mooy ku ñu jox incha allah rabi suñu borom ñu ngi ciy ñaan ndam. kon promoteur yi seet si nañ la jox na jox maanaam promoteur yi seet nañ la waxtaan nañoo ak yeneen bëri mais gars yi ñooy dem ba ci biir ruux. man bépp promoteur bu ñëw si lamb fi woo nga wal nga ñëwoon suñ kër moo gét mi taxawal combat sax ci ñim njëkk a woo man ci man ñim njëkk woo ci mbër ci la ci laa bokk moo gét mi ngay gis nii góor a gars yi dañu xam ni góor dafa nekk ci état bu am doole moo tax ñuy daw ñuy daw avance bi wala góor a dafa dafa dafa dafa dafa am lu mu àndal loo xamante ni mbëri ñemewuñ ko. moo gën woo na ma si ma wax sama combat ak Malick Niang ay maintes fois woo na ma si wax sama combat ak Nees sama combat ak Nees ci Nees la dese mais desewul ci man su bëggan tey wala suba dañuy jox avance waa ji démb rek maa ngi déggante ak moom mais xam nga lamb ji dafa toll foo xam dafa am mbër yoo xamante ne bii dañu am lu ñu sóor ci ni te lamb boo demee ba am looy lu war a xoolaat leneen am mbër yoo xam ne toog nañ 2012 ba léegi daanuñ kenn 2012 ba léegi bëriwuñoo kenn mais nga bëgg nekk champion laa fi ma nekkan laa nekk mais mbër buy daanu sax nga bëre ak moom moo gën mbër boo xam toog bëriwul kenn te daanul kenn nga bëre ak moom moo gën yee gars yi dafa war ñu bëre surtout Malick Niang dafa war a ñëw ñu bëre Ness dafa war a ñëw ñu bëre Malick Niang yow ak Ness dinaa leen seet si ndax Gora Sock li muy wax nii dafa am solo jël leen avance am ngeen bëre parce que mi ngi entraîné mi ngi dem ci dun yi mi ngi nag lan mooy doon dernier mot bi dernier mooy man nekkuma mbër boo xam ne bi danaan kii mooy góor a soog wala góor am na supporter wala man am naa supporter am naa doole damay bëre ay seconde laay bëre mbër yi fi nekk ñi fi des ñi moo war a bëri ñoom mooy maay ñaang nees man waxuma nañ ma may chance wala dara même suñ ma jiroo ci làmb dama def samay performance dama bëri jam ceeri bëri Baye Ma Ndione bëri Cobra 2 bëri Tajan 2 bëri Jokkel bëri Mapol bëri Santañ te ñoo ñoo dama leen daan ci benn ngemb Tyson 2 laa ci bëreel mu def recours jox ko ndam te stade bi daan comme ma nekk mu fi naan ay mbër bii wala mbër baa dañu war a ñëw ñu bëre nees moom su amee lu mu wax man daan naa magam bàyyi ma joon na ñëw jël ko revanche ah, loolu dara nees kaa jëlal bàyyi ma joon revanche santaan ñi ngi daan naa magam santaan na ñëw jël ko revanche mais mbër mënoo nekk ci benn gox rek toog ni doo bëre doo bëre ba kañ man maa ngi fi ndaw laa mais maa ngi woo sama suba reer yëpp neen góor soog moom mi ngi si lu mu war nekk ñaan suñu borom rek may ñu ndam xam Franc Garga de seen combat yi jëm ak Modou Lo ak Papa Sow yàlla suñu borom may leen si ndam ñu leen koy ñaanal quoi. Ah, ñun ñu xam moom xam ñu booloo xam ñu si nekk benn euh, te tey soo xoolee bis bi Franc moo woote mais soo ñëwee gis fi Gora Sock gis nga fi Garga 2 Modou Xarañ Lo léegi la fi jógee keneen keneen léegi la fi jógee euh, donc lii warul la jaaxal parce que Franc dafa nekk benn jeune boo xam ne biir Parcelles lu ñu naan 100 pour cent Parcelles moom da ko wone da ko prouvé amul xaj ak seen ak kenn. donc moo tax su wootee rek bisam nii la mën a mel macha allah xale bu yaru la bu baax la en plus dafa def geste boo xam ne dafa garaaw ci ci làmb mooy dafay prôné dialogue islamo-chrétien soo xoolee sa matin rek dem nañ église dafa ay don suñ ngoon si mu ñëw fii war a joxe ay ndogu te moom ku ko xam ne xam ne chrétien la mais Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne chrétien ak musulman yëpp c'est la même donc Franc loolu ñu ngi ko ciy jaajëfal waaw Franc moom yaakaar naa ko yóbbu moom sa war a koo xam ne chaque jour day compétir mi ngi nii ba làmb yi ba mu commencé ba léegi euh, lutte simple bi mi ngi ci wane boppam macha allah rabbi donc Tyson 2 mbër la duñ ko xeeb de mais dana dina xam ne am na combat boo xam ne ba dalee bër ba léegi mosu koo am ndax danañ def mobilisation boo xam ne mosuñu ko def maanaam ñi tëgg làmb ji nañu préparer ay ticket yoo xam ne suñu ko jaay su ko jaree ba cinq 5 millions dañ ko jënd billet incha allahu rabbi pour mobiliser franc ndax instant yii parcelle ñëpp jug pour jàppale pour jàppale franc biir parcelle. amul kenn kuy xaar instant yi amul jeune amul mag amul keneen. mais Tyson 2 ma fekkoon daayaan mu wax ma lu am solo. ne ma yéen combat bi signature contrat rek ngeen ci am. waaw Tyson 2 xam nga rek moom macha allah moom dafa xaw a yaru quoi moo tax xam rek sooy bëreeg moom da nga koy xaw a rus quoi loolu mooy problème am mais Tyson 2 xam nga ñun xooluñu ko franc lambam si kanam lay xool franc ay ñoom saakis la ñu war wax ay franc la de guerre mais franc xool Tyson 2 maanaam taxuñu jóg ku yaru la nag ku baax la. mais na ñëw rek bëri ndànk ñu daan ko ndànk mu ñibbi ndànk barke sëñ Bamba waaw Franc xale bu ndaw la Tyson 2 mag la mais nu ngeen gisee état physique ki nga xamante ni moo di Franc ndax enchaîné na ay combat nga xamante ni bari na est-ce que yaakaar ngeen ni jour ba dina dina dina tenir Tyson 2 non Franc moom lan lañ ko ñaanal moom muy nekk war gi yaram chaque jour rek amul luñ koy tiital si àdduna xale la bëri na doole yaru na te doomu ndey mooy góor sok loolu rek amul lu muy ragal te góor sok képp koo xam góor sok biir parcelle fii xam ko ci fi xam ko ci jom xam ko ci fulla xam ko ci fayda barke Serigne Bamba. le dernier mot. le dernier mot mooy ñu ngi yàlla dafal ñu jàmm rek ñu fekkee làmb si jàmm ak salaam yàlla may ñaari mbër yëpp wér gu yaram xam nga la euh, bépp mbër bi nga xam ne am na combat bi parcelle fii yàlla may la ndam Modou Lo le roi des arènes mu jàpp Ama Baldé dan ko Garga 2 bi nga xam ne moo toog nii yàlla dafal ko ndam boo xam ne tey dana wesu njottam te xale bu mën bëre macha allah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 cinq grands combats ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngoo